la def ci ay ravage moo tax boo ne ñaan farata xam nga boo ne ñaan farata am na ñoo xam ni ñaan rekk la ñu gëm gëmuñu faju am ñoo xam ni faju rekk lañu ñu gëm gëmuñu ñaan ñoo ñaari ñëpp ci erreur lañu ñu nekk Nafi Ndiaye. voilà Mohamed ñoo ko gisandoo mu nekk euh, Serigne Cheikh euh, Ahmed Tidiane euh, plus connu sous le nom de Al Maktoum. Mhm. yal nañu yàlla tàbbi ci leeram. moom nag mu mel ni doon na ay conscientiser nit ñi par rapport au multiples maladies yu nga xamante ne xëy na suñu borom mën na koo wàccee ñu ci bëri daal di koy duppe balaa looloo waral jamono ji bi fi coronavirus ñëwee yenn ci ay nit daal di mise à jour bi la moom muy xamle ni ñaan bokk na xëy na ci lu nga xamante ne ko defee mu ñu ay jàngoro dabe yu ci mel ni coronavirus yàlla mën nañu cee muccal parce que bari na ay gémmi ñu nga xamante ni yàlla rus na leen ba lu luñ ko ñaan mu may leen ko vidéo yi day baax xëy na ñuy dugg ci internet bi di ko xool daf ñuy delloo si waat waaye itam dafay gën a tax ñu yokk suñu ngëm ci yàlla waaye itam gën a tax ñu moytu yenn ci ay ñaawteef yu nga xamante ni xëy na looloo waral ay balaa di wàcc suñu kaw Mohamed je pense que ça ça ça a éveillé de conscience et que après dinañu dem gën a dégluwaat bi les vidéo nga xamante ni ay kàddu Cheikh Ahmed Tidiane si Almakhtoum. ayca ñu ngi fàttali aussi ñu ngi fàttaliku euh, fi amoon benn 21 juin. Mhm. et bi mu amee gisoon nañu également Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. moom it kàddu na ko au début ñu mhm. euh, ci li baax a a baax. Mhm. je pense que ñoom seen ay kàddu baax na ci réew mi et puis ñu ngi sàkku euh, ñaan ba tey ci bépp këru kilifa diine. pour que jàmm a continuer. parce que bu ñuy wax naan Sénégal am na ay mag ñu baax ñu fi tëdd xëy na yàlla rus na leen ñoom ñi dañu cee bokk bokk na ci tarixa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk looloo waral sax vendredi je pense que dinañu amal ab journée de prière même bu fekkente ni quand même les oulémas interdit prières yi rassemblement bi néanmoins ku nekk bu toogee këram rek fas yéenee ñaan ci xolam je pense que du ñàkk ay ñaan yu nga xamante ni nii noonu waxtu wi dab nañu fi mu nii nag parce que waa l'essentiel ñoom ñi ngi toog xaar xanaa ñu joxe di gars yi rendez euh, à partir la mu yàgg maa dooleel nag penn sama xarit la sama lépp la daal ma leen bu baax a baax di wax ne rek téléspectateurs yi tey lii lañ leen andiloon ci wàllum euh, rendez di am yaakaar que lépp li nga xamante ni waxtaane nañ ko rek gis ngeen ci seen bopp bu baax a baax mhm. on se retrouve demain incha allah ay on se retrouve demain à partir de 17h30 incha allah ñu fàttali leen ba tey mesures yi nga xamee ni euh,